ñu ngi ci téere bi di Maada ani Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yi war a jàngat sënët yi nga xam ne ni bàyyi am na ko maanaam sukkandiku waaye ay sëriñam moom fan la jëlee moo tax taalibi dafa war a am sëriñ bàyyi li muy foor foor dafa am ay sëriñ man lam yakun lahu cheikhun fa cheytaanu cheikhuhu mm-hmm, mm-hmm. ko amul sëriñ seytaane mooy sëriñam sëriñ it doo dem ba am nga wuteeg moom nekk sa kilifaay bopp force loolu kenn du ko def ndax doom du dëngee waajur bëri na nag te ñoo xam ne nii sëriñ yeneen yar dañoo mujj dëngee ak ñooñu wala na ñooñu dara ñoom la loolu doom ji dëngee waajur la xam ngeen ne waajur ji baaxut de léegi nag loolu fees na dellu ci péej ñenn ñoo xamuñ sax sëriñ ñoom ñooy seen sëriñu bopp hmm? xam ngeen loolu ay caaxaan hmm. moom la bàyyi waxoon kuy xootee xegg ñaar ñoo ñëpp yoruñ dara ci yàlla mhm. li wax ne yoruñ ci dara ci yàlla mooy lii ma waxoon li bàyyi waxoon bàyyi ne daf ne kuy xooti xegg ci yàlla mhm. te amut sëriñ mhm. kooku kenn dàq ko nar kenn dàq koo tooñ wa man azlamu man iftara ala llahi ku dàq tooñ ku nar yàlla bàyyi nga ne mooy bi daawal wusuli bi laa waasitin mu woote ne mu xegg na ci yàlla amul benn waasit kon ñooñu waxuñ dëgg ci mbindam bàyyi na laa ñi nga xam ne it am nañ sëriñ mujj wuuteeg seen sëriñ ya nekk seen sëriñu bopp nekk seen kilifaay bopp ñooñu ti Tidiane wax ne rekkeeku nañ ndax daf ne képp ku yàlla jaarale may ci doomu aadama nga jàllal bi ku weddi loolu yow su boobaa dala yàlla joxoon daf koy rekki kon ñi nga xam ne am nañ sëriñ sëriñ ba yar leen xamal leen gannaaw gu ñu weddi sëriñ ba inkaar ko wuuteeg moom dem sax ba teg ko ci seen ak ron ñooñu laa wax ne ñooñu ak rekkeeku ci lañ nekk Baye dafa amoon sëriñ tey sëriñam daf leen a fonk Cheikh Tidiane dafa amoon sëriñ ba mu demee ba raw ñëpp dafa taxaw a poogaroo sëriñam ne ulaayka abaay fa jiini bi muslim wutewu te kenn si sëriñam daf ne ñii ñooy samay baay andil ma ñu mel ni ñoom Baye ruuxu mooy ce que sëriñ bi la yar sëriñ bi la yar nag waroo koo dagg uddoom li abaayam li nga am delloo ko sa baay delloo mbir mi sa sëriñ waaw moo tax war na nafataat mbir yi war nañoo nafataat mbir yi سنده سند ولد الله نيا نوكي على جرم الفصل السادس قاد نيتل باي نيان نيو سرينم الفرم بانقاس الذي بين قمنا يحصل زنام أشك سك في سنتي سيجوكم بالأصل سيجسان يحتاج ذا آجو إلى ما يؤكد تلو فدل فرعية ونمون بانقاس لا وعلى قطع أجو جم أجو بأصل سيجسان بانقاس بو قمنا يني سيك ساك اسك مم جوكنا سيجسان مديت ورنا أم بربي ورنا جوكنا چا نعم. بانقاس لست جوكنا چا طالبيت war naa am preuve buy wane ne moom taalibe diw la diwee sëriñam lim am ci diw la ko jëlee loolu dafa laaj preuve boo ñëwee ne taalibe nangam laa ñu am ana koy waree ah, nga naan dara wane wu ko ak ko jox ak nangam nangam loolu wóorul xamuñ xamuñ xëy bu ñun li feeñ lañ xam kon foofu ñu bindal ijaaza goo xam ne nit ñi dañ ci mën a sukkandiku ne yow ci diw nga jëlee diw jëlee ci diw diw jëlee ci diw amal ixtiyaaj waaye aajoo ila sanadi asli fii wéeduwaayu cosaan ilaa nafsi jëm ci boppam te sanadi saaxibil faydati ti ki waaye borom fayda ilaa saaxibil fayda ci borom faydu min nawaafil umuri loolu ci ndollantalu mbir la bokk. Hmm? <laughs> dégg nga maanaam loolu daanaka jarul ko daal. Hmm. nit am sanad ci boppam. yaay borom faydu bi ñu ne lu yoone ne yaay borom faydu bi maanaam am sanad bi ma ne yow yow jokkale nga borom bi te yaay borom faydu loolu daanaka. Hmm? xëy na li mu bëgg wax fii bàyyi sax sanat amul soon soxla ndax moom la yàlla teg faydu bi ci loxoom kon moom muy am sanat ci tarixa bi loolu soxlawuñ ko sax xëy na loolu mooy wax ñu dëgg-dëgg waaye nit moom mënul am sanat ci boppam waaye bàyyi ak Cheikh Tidiane mel mooy nit ko am sanat ci boppam rek loolu daanaka bu ko amul woon it ko waaye nag da ko am ngir nit ñi mën cee teg seen bët ne moom tiijaan balaa ñu ko jox fayda فشيخ تجاني شيخ تجاني ليلان هو صاحب الطريقة من برم طريقة بلا منازين شرور الخشو وشيخ إبراهيم رضي الله عنه هو صاحب الفائدة من برم فائدة بلا منازين شرور الخشو فمتى ننازه كن من يقشو في ضرورة تبرير سند الفائدة في لروك لي ويدواي فائدة بلا طريقة من الطريقة لن لن يبدي خشو لان فائدة بي في طريقة بلا بوكم دير لو كن دي خشو comme que faydu bi ci tarixa bi la bokk kon Cheikh Ibrahima soxlu sax ijaaza ndax ñëpp xam nañ ne moom mooy borom faydu bi kenn xëccewut ci Cheikh Tidiane mooy borom tarixa bi te faydu bi ku ne xam na ne ci tarixa bi la bokk kon borom faydu bi ci tarixa bi rek la mën a bokk yaa ngi dégg li mu bëgg wax daf laa bëgg wax ne bàyyi daf laa bëgg a jàngal yow taalibe bi ne war nga am sëriñ war nga am it ijaaza buy war ne yow ci sëriñ dangam nga jokk am preuve bu ko lay ndax moom mi nga xam ne soxlawul ijaza am na ijaza moom mooy borom tari faydu bi Cheikh Tidiane mooy borom tarixa bi te ku ne xam na ne faydu bi ci tarixa bi la bokk te teewut am na ijaza ci ay këyit kon ala kulli xaalin ci nu nu mu mën a demee fay na Cheikh Ibrahima ko Cheikh Ibrahima di laanu aw daxa leeral na sanadu sanadam wéedu waayam wa kutubu wa katab wa katabu mu bind ko wa xannanawu mu wutal ko cosaan defal ko ay loi wane ne ci ñii la jëlee ñi jëlee ci ñii ففي إحدى رسائلي بين تلا ترمي رضي الله عنه ينكو يالا جرم إلى سيدي أمجديني جمت سنغو نياري ويتدي والمنيرين أك نياري ويلارل الأسدين يتخي إلى سيدي مونغي جمت نياري سنغي الأمجديني نيتدي والمنيرين نيار نيلارل الأسدين يغنى تخي سيدي محمود بن شيخ سلين آه، سما سنغ محمد دوم شيخ أحمد بن شيخ محمد الحافظ دوم شيخ محمد الحافظ وسيدي محمد بن شيخ أحمد أسلم سنغ محمد بن شيخ أحمد بن شيخ دوم شيخ Muhammad ridwanullahi taala yal na yàlla gërëma ni jëmee ci borom seen ñaari seen ñi la niru la niyu waa ma suaal waaye laaj gi ngeen laaj an sanad yi sama wéeduwaay hmm, fay noo naka li am bam walilahi alhamdu maa ngi sant yàlla taxasala am na indi fa man min asaani di ci ay wéeduwaay hmm, hmm. maa law jamaatu loo xam ne bu ma ko dajaloon la kaanal mu nekk taifan di taalif waxdaa moom donc li ma am si ay sanad bu ma ko dajaloon muy taalif وجل اعتمادي لأبك سمى سكونك على سنة دي سمى سنة الحافظي بين خمد فأجوسي محمد الحافظ فهو العالي ما أجي كوي الغالي ما أجي سير عندي فما سمى سنة بيقنا كوي ما يسمى بيدوها يسمى محمد الحافظ وإن كان جلنا كان كلها سمى سنة جيب عالية سنة أجي كوي غالية سنة أجي سير بولم إجازي أم يبدو كوي لا يسير له فأنا سمى بصدي محمد الحافظ موغنا كوي نعم. واتسلو ماغي جوك بي سمم بواسطه سيدي تي جوك لك سما سانغ ومولاي اك سما خليفه حامل الرايه التجانيه كي خا نمو غاد درابو تيجان والمحارف العقانيه قم قم معرفه اسكن يال واخما ني اسكن شيطان امنا معرفه يا خني معرفه الشيطان لا دافاي ديف نيت ييفه واي كي مو معرفه معرفه عقانيه لا يره قم قم يا خم ني يال لا جوغي مي سيدي سما سانغ مولاي سما خليفه الحاج عبد الله بن حاج فلا غير باي شوال معرفه صح أمام سري ما عبد الله ولا حد والله سريع أم سري مي باه فا كان <laughs> رو كتش معرفة كان رو كتش أخي رو نبرا أي سري جم هم مرا باه من نحن باه بيننا فا كان نو ممدا كان عبد الله عبد الله بن حاجة رضي الله عنه سمو من جاري إيه، سنة بوم أم محمد الحديث ولا شك أمو سك ولا ريب أمو بن وأنت ولا وهم أمو بن دفن عبد الله يقول حاج كان قام لون تاريخ واتصل دنا جوك بيت من طريق العالم يونو كسيوك على شارك جنا فس والشيخ الأغار أكثر من بيجنا سنجة والكبريت الأحمر الكبريت الأحمر بوم ما matière boobu nga xam ni dañ koy defaree xaalis yi matière bu jafe wala badril munir ak maanaam sang bu mag bi rek la bëgg wax al azhar bu weer wi gën a gi gën a leeral cheikh Mouhamed Saïd mat cheikh Mouhamed Saïd ci moom la jokk mataana yàlla ñu xewal allah yàlla bi tuuri baqaayi ci yàgg ak desam amin wa kilahuma kum ci ñoom ñaar atlaqa ijaazal na ma lii ñeel abdoulaye wul haaj jox na ko ijaaza itlaq bu jokk ci Mouhamed Habib Mouhamed Saïd bi jox na ko ijaaza itlaq kon ñaar ñëpp ijaaza lañ ko وانا من اتيقن دنا وولو انا ان عنده نعم نكرف مو الاذن المطلق ديغل لو امنا اجازه الا واي جوخنا كون امنا اجازه يم سي محمد الحارث إيه، يونم مانام نيكو جوخ اجازه مي يون عبد الله بن الحاج اك محمد سعيد يعني ني جوخ نكو جوخ ولم كمل سيدي وسم اني من والله الحمد لله ما سنت يالله nachaatu fi tariqa ci tariqa bi laa sosu waaye ne ko man nag si tariqa bi laa sosu kittu xaw naa laa aarifu xaw ma illaa hiya lu mooy tariqa bi man ngaa wax ne dem naa ba man xaw ma sax lu mooy tariqa bi faqad kaada xaw na an laa tuallafu duñ taalifu waraqatum benn kayit fiihaa ci tariqa bi illaa wajala baa lu mooy andi na ko waalidi sama waajur wa waqaftu ma liir aliyaa ci kaw ci ci téere boobu mu ne waxuma téere sax waaye kayit bu aju ci wàllu tariqa bi buñ ko bindee sama bàyyi andi na ko man liir naa ko kon xam xam na tarixa bi baax de wala mu xam-xam nag moom taalante yër naa ko kasira lu bëri yër naa lu bëri min kalaami ajillaayi fuqahaa yi ci waxi borom xam-xam fiq yi màgg yi al muhaqiqiina yi nga xam ne dañuy dëggal seen xam-xam maanaam dañuy wax dafa am tëgtal waqaftu taxaw naa aydan ba tey ala kalaami jalamadadi fuqahaa yi ci waxi ponkal yi ñu dégg fiq maanaam man sew soy fiq yeeg masala yeeg yëpp teg naa ko sëriñ loolu bu caaxaanu de kon am na fiq xam na am na xam-xam xam na tarixa bi fa naax na ñun tijaan yoonu ak ñun tijaan yi ala basirati ñu ngi ci ab gis min amri naa suñ mbir ñun xam nañ suñ mbir min amri tari min amri tariqat naa suñ mbiru tarixa xam nañ ko zahiran ci du feeñ yow baatin ak lu nëbb tarixa bi nëbbu ñu de xam nañ ko bu baax xam li ci xew leena naa ndax ñun araanaa yàlla wan nañu alxaq dëgg xaqal muy dëgg faras alo ñu ngi koy ñaan an yarzuqnaa ñu wërs mu wërsëgal ñu kamaale itibaa yi topp gu mat moom nekkut di werante ndax di ñaan yàlla na yàlla ko yàlla wan dëgg muy dëgg def na ñun yàlla wan nañu dëgg muy dëgg mm-hmm. li ñu ñaan rek ñu topp ko nañ ko war a toppee mm-hmm. ndax loo topp dëgg rek mu des mm-hmm. moo tax mu ne yàlla ñu yàlla wërsëgal mat ak topp ko waa waaraanaa yàlla wan nañu al baatiru caaxaan baatiran muy caaxaan lay caaxaan yàlla xamal nañu ko fa nas alu ñu ngi koy ñaan kamaala iccinaa bi mat ak tet ñun li ñu ñaan yàlla mooy ñu moytu ko bu baax وفي رسالة الله في بن الليتر رضي الله عنه قال ألقى على قرم لسيد محمد محمود بن كور أم في ولا نفنى أم إجازة محمد سعيد أم إجازة عبد الله ولد حاج يو يبوك جوك لدى فايدم سي محمد حافظ منيوات بن الليتر سنگ بي نيوخ يقول منك الحمد لله ولد روحي وسمو دوم روح أي كباية وحلي تحقق سيدي سما سنگ محمد محمود بن كور azimtu digal naa lakka ñeel la fi tilaawati wérde cheikh ci jàng wérde sëriñ bi alhamdulilah nu yàlla ko yàlla gërëm ni yaa batan an hu wuutu ci Cheikh Tidiane maa wuutu Cheikh Tidiane jox la ndigal mhm. kon Cheikh Tidiane ko jox ndigal direct wa sanadi sama wéet sama wéet waaye ana bu gën a kawe an sayidi maa ngi ko jëlee sama sang Ahmad Sukeeru ji Ahmad Sukeeru ji kon jox na ko ijaasa Mouhamed Saïd Abdoulaye Wulaay Ahmad Sukeeru ji fu mu jógee fu mu jëlee an sayidi Ahmad Abdoulaye mu ngi jëlee sama sang Ahmad Abdoulaye an sayidi aliin tamasini mu jëlee ci aliin tamasini mi nga xam ne xutbu la woon moo jëloon cëgg ak tàndal ma ga rek ne ko ay wa laggal dem ci Cheikh Tidiane cëgg ak tàndal ma nga lagg ba ci Cheikh Tidiane fekk mu ngi julli mu wadd ah lu mu fu mu toogaar nag mu ngi teew ak yonent bi moom aliin tamasini noonu la meloon hmm. jëlee na ko si sayidi aliin tamasini an Cheikh Ahmad Tidiane aliin tamasini jëlee si Ahmad Tidiane hmm. kon sukayri ji moo ko jox kooku jëlee ci Abdoulaye Ahmad Abdoulaye mu jëlee ci aliin tamasini mu jëlee ci Cheikh Tidiane radi yàlla na gërëm allah yàlla am na ci ñu ajmaine mboolem seen waan Saïd Saïd yi jëlee naa sama sang Mouhamed Saïd Mouhamed Saïd bi ñu waxoon léegi mhm. kooku jox na ko ijaasa bun Ahmad bun Cheikh Mouhamed Hafiz doomu Cheikh Mouhamed Hafiz ani Cheikh mu jëlee ko sëriñ bi radi laa anum yàlla yàlla gërëm na ajmaine mboolem seen mhm. wasal yàlla doy ko allah yàlla ala sayyidina suñu sang Mouhamed Mouhamed wa ali ak ñoom wa sahbi ak salaam wa salaam maa ngi lay nuyu وكتب بنا إبراهيم بن عبد الله يسأل كورخي لا تفعل نعم أنت يعلم بهم شنهم آمين زين وقال بيا يوي أي إجازة وفي تقديمي بمي إجازة للشيخ عبد الله رضي الله عنه ما الله قرم لين ابن وصنا دي سمو بدواي سكرت تدنا من شمم طرفا أكتب في تأليفي شمم تأليف كاشف الباس في عقل الجزء الأول شمو جي قاج بجيكبه تدنا فسما سنة وزيادة على ذلك يقتلول عن سيدي جلنا سمسانغ وحيد عصري كبيرتي جمنام وفريد دهري كبيرتي جمنام بتاي صاحب التاليف برم تاليفي المتكاسر يبري المفيد يام جرين الذي يقوم كل عالب أو جلها ولد أبو في طريقة في طريقة بلا من جريسي سانغ بمقبي شيخ راسل سني راج عبد أحمد بن حاج العياسي سكيرجي أمو غنن سكيرجي لك إجازة من جمنام dina ah man dina am yàlla ko yàlla gërëm woowu moom sukkari jaan cheikh yi mu ngi jëlee sëriñam Seydi Ahmad Abdoulaye bi woowu moom ah, ah, ah, Ahmad Abdoulaye bi xanaa xutbu mu ngi jëlee san xutbu eh, ba alhaaji Aliin Tamasini woowu moom Tamasini ani cheikh xatmi Tijaani mu ngi jëlee cheikh Tijaani yi yàlla ko yàlla gërëm mm-hmm. wala yu jël duñ fekk al yawma tey sanadun sanad ala bu gën a kawe min haada sanad ci biir sanad mu man bëgg ko woon nag am na yeneen sanad na waaye waxtu sartu gàttañ la naa alee ci moom li liqi waxtu ngir waxtu bi xat giñ xat dégg nga diggante mu Cheikh Tidiane ñett fa dox mu wax ko sanad boobu rek ndax hmm. na yeneen sanadu cheikh yi sanadu bi fi kaas fi ilbaas ci kaas fi ilbaas xaala wax di laa nan ko gërëm fi xaatimati ci mottali kaas ba hmm. ne haada lii waqat saaqani màng na ma saaiqu saadati aji màngi texe kii xommat texe moo hmm. ma xommat kii xommat texe nag bu la xommatee fu la jëmee mooy texe bi fadli mu di mu dabbiril xay bi ci ngëneelu aji doxal faddu wa shahadat ak li teew lu ne boog li fad li teew lépp ki ngay doxal mooy yàlla ci ngëneel yàlla moom lama koy xommat te xommat ila hadil hadratil ahmadiya jëm ci téeb ahmad bi ak tijaane gi ko jik sof tijaan wala xiraatu ak fël fi silki haadi silsila ci yoonu bile dégg nga ceen al muhammad gi ko jug muhammad al rabbaani gi ko jug yàlla caq bii nga xam ne nii lépp mbiram yonent bi ak mbiram yàlla. Hmm. dugg naa ci biir caq boobu. bu hmm. doon ay per la ne benn laa ci per yooyu. fa talaqaytu ma jël haadal wirdan azima wirdi bu màgg bii. Hmm. wal fadl ak nga neel ak jazim bu min faridi dahri ji nga xam ne moo wéeti jamonoom wa hujjati ahli asri mooy layu ñoon jamonoom wa zamzami awraad yi mooy zamzam ay wirdaam wa asraar yi mooy samsam ay mbóotam wa majmay azkaar yi mooy rajewaay zikram wa anwaar ak ay leeram dégg شيخ اسمه سلمي والدي اسمه واجد العالم كبر كم كم العلامة كبر كبر كم كم كم القدوة ما ريتيف الدراكة كي يجد مسألة ينبيا الفهم كبر لم يدق مسألة خليفة الشيخ تجاني ما خليفة الشيخ تجاني بلا ريب يجلسك وحامل راية طريقتي ما قد درابو طريقة في بلاد الغرب شيء وصو على دمنا وهو سرنج بابو الشيخ ما سرنج الإمام بنجيت واحد الاولياء كان لا تولي لي على علام يرانيكوي الجامع كبول بين الشيعات ديغنت سري والحقيقه ده حقيقه فصار مجي بزاتي لي خريت خريت دنگا خريت الطريقه دي دي سالتي طريقه بي خريت موي خم الله واي موم موي خم طريقه بي على عبد الله اللي تود ابن سيد محمد ابن سيد محمد مي واجورم نعم، نعم. لا يزال يالا بوم دني ربو برمم يرقي ديكو ييغي الى مقام احمد تي مقام احمد ولا تي مقام بنجرسنت mu ne ki ko jox wérda mhm. mooy baayam am na yeneen ijaaza nag waaye baayam ko jox wérda mu tagg baayam tagg yi ne xalafa zamanu la yatiyanna bi mislihi kazabta yam kazabat yaminuka ya zamanu fa kaffiri mu ne xalafa gëñ na zamanu jamono ne la yatiyanna dina andi bi mislihi lu mel ni sama baay ma mm. ne ko kazabat fen na yaminuka sa ngëñ gi ya zamanu yooyu jamono mm. fa kaffiri na nga kafaara ku mel ni sama baay dootu amati bàyyi loolu la wax ci bàyyam ak fonkoon bàyyam moo na wax ne ku dem mbir ne boo ziyaaree bàyyi war ngaa ziyaare Jalaay Abdoulaye ndax baay ko fonkoon bàyyam la te xam naa ne jox na ko teggin teggin gi raw gi Mahamadul Busayri jox sëriñam Mahamadul Busayri Abul Abbas al Marsi mooy sëriñam boo demee nag seen raw di ya nit ñi ni Abbas mu ëpp ni ñuy ziyaare Busayri bàyyi ne Busayri dafa am teggin rek waaye mu ëpp ma xam sëriñam waaye dama am teggin gars yi di ziare sëriñam lu ëpp luñ koy ziare su ko neexul loolu daam ma ne kon bàyyi yaakaar naa ne teggin googu ci bàyyi la ëppee. Mhm. moo tax yaakaar naa ne boo ziare El Hadj Abdoulaye la ngay am ci ay tëbb ak ci may boo ziare bàyyi sax mën nga ko bañ a am ndax teggin. Mhm. loolu nag maa ko yaakaar. Mhm. wa rabbaani yar na ma bi hadal wirdu ahmad yi ci wirdu ahmad gii. wa méngoo na tarbiyati sama yar wa taalim ak sama jàngal. moo ma jàngal moo ma yar. bàyyi ma ko jàngal bàyyi ma ko yar moo ko jox tariqa faqad talaqaytu jël naa minu ci moom bi alhamdulilahi sant yàlla faraidul fawaidi njëriñ yu wéet ya wa silaatil asraari ak may yi ya wal askar ak sikari wala waid ak njëriñ yay dellu ci ci jàmm bi maanaam jox na ma ay sew-sew ak ay xam-xam ak njëriñ yu bëree bëri woo moom muqaddamun kuñ jiital la fi tariqati ci tariqa bi lawu ñeel ko al isnul mutlaq ndigal luñ jooyal bàyyam am na idlaq من أهل يشنون تاريخ بي وكل شيوخي تنبولم أي سريم أجازو جوهنك إجازة وأطلق بويل لنكو حتى اجتماع بمدجل عندو فموم إحدى عصر سلسلة فكي يونك بن تيوالو تاريخ أنا أمنا سي إجازة فكي إجازة بن ما بين مطلقين يني لنكو جوال ومقين يني لنكو تنكو wa salaasilu ay yoonam mashhuratun lu siiw la xad nazama way na ko baadu ixwaani kenn si mbokk yi toxfatan ngir may ko li saayir aqraani ñeel mas gi yëpp kon bàyyam man alaaji Abdoulaye ko amoon ijaaza la moom it moom it moo jox bàyyi tarixa bi kon sanadam ci wàllu tarixa mooy bàyyam am na yeneen i ijaaza nag yu ñu ko jox watu fee faatu na radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm wa ardaaw yàlla te dolli ko te gërëm loo ko wa an naa yàlla ñuy gërëm bii ci mu amin jaazaaw yàlla na ko yàlla fay àlla yàlla an nii wuutuma wa anil muslimina wuutu jullit ñi xeyran yow sama bàyyi defal na ma loo xam ne mënu ma koo fay yàlla ma si yàlla wuutu hmm. waaye defal na jullit ñi loo xam ne jullit ñi mënuñ koo mënuñ koo fay yàlla na yàlla wuutu jullit ñi ci fay ko kon wane na am na ijaaza ci Abdoulaye Wuld Haaj hmm. Mouhamad Saïd Ahmad Sukari ji hmm. Abdoulaye Wuld Haaj moom ci uh, ijaazaam Abdoulaye Wuld Haaj dem ci Mouhamad Hafiz Mouhamad Saïd tamit noonu dégg nga uh, Sukari ji ijaazaam bi jëm na si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dégg nga naka noonu mooy ki jox tariq ki ko jox wirda yar ko moom bàyyi jàngal ko xamal ko kon bàyyi li muy baax baax dafa am ay sëriñ yàlla la téye am sëriñ te ay sëriñam ba léegi wute wut ak ñoom yow nag xas say sëriñ ngàññ leen wàcce leen may gaa ngi des yow te mu jugee sëriñ ci loolu mun nekk وقد صرح ليلا أن بعض أهل الكشف ينس من الكشف لسيدنا يسوع سان على عبد الله بأن maanaam ñenn si ñu yàlla may kës ñëw nañ ci alaaj Abdoulaye wax ko ne ko bi ànd Cheikh ne ko Cheikh Ibrahima laa xaajata déet xaajaloo ñu ne ko fii taqdimi maxluqin ci jiital ak mbindeef soxlawul mbindeef di ko jox ijaas ñenn ci yàlla may kës ñëw ñëw ci alaaj Abdoulaye ne ko sa doom ji soxlawul mbindeef di ko may jox ijaasa فقد قدموا جيت لك الخالق يالا مي بن نيب تعالى ك لا يالا يالا ماي لك ديغال با فاري وعلى رغم من هذا عندك لي لب فقد قدموا جيت لك الشيخ محمد محمود الشنقيتي التيشيتي كوكو جوخ نك اجازه ابن علامه دوم بروم خم محمد صغير بن شيخ احمد صغير كي جوخ نك اجازه كنا سو تقديمي تاكسي اجازه في في الباس من كاس في الباس تاكسي بمكو بندل من كاس في الباس كون موم نين تاريخ مين يوكو جايجاز وحصل أمنا على الإذن المطلق تلقل من جوال من أعجوبة الزمان تشكيم تاني جمال من كان خمنا أشعار جنة له نيالكو بالولاية الكبرى تي ولاية قمك كل بنان بف بارم العارف رباني العارف كي خمي على رباني كي كجويال نحلبهم بريال وارث تربية الإمام مودون يرب إمام بأتجاني كي تجان manam yon dafa don nañ cheikh tidiane yaraté Seydi Alaaji Abdoulaye bun Xaaj al Alawi Abdoulaye bun Xaaj kooku jox na ijaaza bàyyi ijaaza itlaq ba tey mm-hmm. wana su ijaazati teg si ijaaza ba fi kaas fi ilbaas boo demee si kaas fi ilbaas da nga fekk teg si ijaaza woowu wa waqaa tabbine loo ñëw ko al ismu mutlaq ndigal luñ joyal min tariqi allaama ci yoonu borom xam-xam bu mag al aarif billaahi ka xam yàlla Seydi Mouhamadou Kabir maanaam Seydi Mouhamadou Kabir bun Seydi Ahmad bun Waham bun Abbas al Alawi Mouhamadou Kabir boobu jox na ko ijaaza itlaax kon nag su ijaaza di teg si ijaaza bu fi kaas fi ilbaas mu ngi si kaas fi ilbaas ba tey kon Mouhamad Kabir boobu jox na ko ijaaza Abdoulaye Wuld Haaj jox na ko ijaaza Mouhamad Mahmoud Singayti Tichiti jox na ko ijaaza Mouhamad Saïd jox na ko ijaaza ak baayam bi ko yar ñi ñëpp ay wéeruwaayam wéeruwaayam lañ ci tariqa bi te moom soxlawul ijaasa yàllaa ko njëkk njëkk jiital comme ni ko ñenn ci ñu am kes fu waxee bàyyam kes fu nag ku ko wedd rek jàngu histoire Xadr ak Moussa ndax xam na ba xam lañ denc ci ron miir bi dara mayet ko lu may kes fu gu ko yàlla may wuññil ko mbiri xam ba xam xale bi bu ma ni mi demee xam ba xam gaal gi ñu dugg ci kanam la fay xew loolu mooy kes am nañu ko yàlla may Xadr wali la woon ñam kessu na ñoo sédé li bay te teewul amna ijaza ci nit ñi do daf lay jàngal nga ngaa am sëriñ wa hazal amna ala izni mutlaq ci ndigal luñ jël mané khalifat akbar ci xalifa mag bu alam al ashar ak drapo bi gëna siw am sang bi gëna siw rek Seydou Mouhamed Saïd bu Cheikh Ahmad bu Cheikh Mouhamed Hafiz kii surtout Mouhamed Hafiz la wana naa la léegi moom bokk na ci ñu ijaazal bàyyi jox ko izni ijaza itlaq ñi xamu ñe sang tariikh bi bu defee ñii nag ah, boo boo leen amee mën nga wax ne ulaayika abaayi fa ji nii bi misli mi sama baay andi ma ñu mel ni ñoom. wa nasu ijaazati teg si ijaaz ba fi ijaaz ba fi ilbaas mu ngi ci kaashfi ilbaas kon <coughs> ñii eh, bokk nañ ci ñi nga xam ne ijaazal nañ Cheikh Ibrahima lii mooy sanadam ci wàllu tariqa bi di la jàngale yow taalibe bi ne war ngaa am sanad war ngaa am wéeduwaay tamit ci wàllu tariqa bi am sëriñ. إن أريد الإسلام واستطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته